mbokk yi teewlu saabal tomb net fi taataane seeni xibaar ci làkk wolof lu soxal janoo bi eh, waa lëkkatoog yeewi askan wi doon amal ak saabalkat yi tey kàddu ya fa ci ak tënk Cheikh kiijaan yum lañ koy dooree toogu jëwriñ ju njëkk ji dara warul ko lu dul bëgg a fay daa yóg kàngam yi tàmbalee takk ci biir làmb làngam ji moom Macky Sall Cheikh Tidiane Youm ba tey di xam le ne li li tax Macky Sall euh, toroxal Mimi Touré mooy da ko wóor cëng ne daa ñàkk jongante jàmbur yi Euh, Cheikh Tidiane Youm di wax ne samp ko euh, na ngornement bu yees bi dara warul ko lu dul bëgg a jàmmaarloog yeewi askan wi ak tegi pexe ngir jàllale ñetteelu kay ji loolu sax tax mu delloo si Ismaïla Madior Fall ci jëwriñ ñu wàllu yoon euh, Macky Sall dafa am jafe-jafe xel te faw ñi ko wër dimbali ko du samay kàddu kàddu yi Cheikh Tidiane Youm la mooy xam ne ba tey ne gouvernement bu yees bi gouvernement naxaate la liggéey taxu koo jóg. ci kàddu yafaroose Khalifa Sall moom di xam ne ne atum ñaar junni ak fukk ñaar danoo amoon yaakaar ju rëy yaakaar ju mag ba nuy fal Macky Sall Khalifa Sall di xam ne ne Macky Sall na def jàngat ci lan moo tax saa su saa Sénégal yi di ko gën a wan ginnaaw. nit ñaa ngi koy nit ñaa ngi wax ñetteelu pal waaye Macky sàll ci boppam gëmu ko kàddu yi Khalifa Sall ba tey li ñu war a wax léegi mooy ñaata nit ñoo demagul kaso ci nguuruk mag sàll Macky Sall dafa jàppe boppam yàlla ju ndaw te xamul ne yàlla dëgg nga koy xaar Khalifa sàll ba tey mi xam ne ne am na loo xam ne mënula la ne mënu la wéy mënu la jàll ba ñuy àttee Barthélémy Dias ma réew la woon ba ko joxé dogalu àtte bi Barthélemy Dias dafa yoré ndomal tankul jàmbur Khalifa Sall di xamné né ne atté kat dañu leen di déy la atté ay kàddu mu wax né su né ngom lan di la fa won wonina na wara sakku ñu dakkal li ñuy parti Barthélemy Dias ci ay kàddu mbatay tey mu ne ngombalaan gi dañoo war a ñu dakkal top gi top parti Barthélemy Dias euh, ba ba kayam di jeex ndax ñoom nag fukk ak juróomi weer rek la leen moo leen fi dese. mbokk yi ba tey yéen a ngi wéy di teewlu saabal tomb ne di taataane seeni xibaar ci làkk wolof lu soxal ba tey euh, ndajem euh, kilifa yeewi askan wi kàddu yu Ousmane Sonko euh, ci mbiru gaalug joola fàttaliku ko baax na nee na màggal bis bi it baax na waaye dañoo war a fexe xam li sabab xam li ko sabab ak képp ku ci laale ba tey ci ay kaddoom moom Ousmane Sonko muy wax ne ndaw yi nu teewal nun yeewi askan wi ca ngomlaan nga lépp lu ñu fa def loolu kilifa yi ànd nañu ci ak ñoom ñetti téeméer ci téeméer Ousmane Sonko te wax ne ngombalaan gi wét sart yi na njëkk a tegu ci yoon mu ne xeex du def defe li ñu war a wax mooy lan moo di indi xeex bi ay xale bu ñu dee xeex da ngay xool ki tooñ nga jàpp ci loxoom ne ko yaa tooñ Ousmane Sonko di xamle ne ngombulaan ngoo xam ne ëppoo fa doole lépp dañu ko war a wala dañu ko war a wax dañu koo war a yemale lépp ñu fay def it dañu ko war a waxtaane Ousmane Sonko di xam ne ne Macky Sall daa jàpp ne Sénégal da ko doon ci ay maamam moo tax mu jàpp ne Euh, mën naa tas euh, ngombulaan gi Ousmane Sonko ci mbirum ngombulaan bi lay des ba léegi dootul doon barabu nelawukaay boo xam ne eh, jàmbur bi day nelaw ba waxtu wét jot rek mu jóg wet lépp lu ñu fa indi nañu ko càmbar. Ousmane Sonko ne bañu ñu falee ba ñu falaatee Macky Sall ci atum ñaari junne fukk ak juróom-ñeent laa waxoon saa Sénégalais ne at yii ñëwaat dina metti lool ci yéen na ma ko waxee woon rek. ak ak genn wàll yii dese Macky Sall dina métti lool ci saa Sénégal yi lu toll ni taraftul ayn yi du sotti ko ba tey Ousmane Sonko di xam ne ne réew mi mënula téye mbayam réew ma mënula dem moo tax bu adduna bi tissoolee rek nga soj Ousmane Sonko di wax ne léegi ku bëgg a doon jëwriñ wala nga am ay am ñareet rek saagal Ousmane Sonko ndax Macky Sall ngay gis uh, ku yendoo saaga ngoon mu woola ca njënd la photo wu ak yow uh, may la xaalis jabaram jabaram toog ba tey mbokk yi teewlu saabal mu net kaabi Ousmane Sonko gouvernement combat bu Macky Sall ci général Fall ak commercial yàgg commissaire yàgg la ko yaakaari Ousmane Sonko di xamle ne ginnaaw yàlla amul luy dund lu tee mamana doonub la wax ci jogante yi Ousmane Sonko di xamle ne maa ngi jaajëfal Barthélémy Dias li mu wax lépp ci taskati xibaar yi lu dëggu la askan wi ñoo war a sàmmal seen bopp ñi ñuy fal ñi ñuy fal ndax campee fii defutuñu ko Euh, Ousmane Sonko jaxale ba tey ci mbiru Barthélémy Dias euh, euh, lii du mbirum politique la ak jaay doole xeex moo koy faj kon Macky Sall li muy bañ dina am jëriñ yëpp ca ngombulaan nga la leen di xaar Ousmane Sonko di xam ne ne li ma bëgg ngeen jàpp ko mooy Macky Sall atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent dootul doon njiitu réewum Sénégal ba tey mi xam ne ne bu dul woon ak alkaati bu dox sunu diggante ak ñoom mbir mi dina demee neneen mu jeexale ay kàddoom moom Ousmane Sonko di xam ne ne eh, dinaa delloo sama daamar ak sama jàlluwaax ndax liggéey a taxoon ñu jox ma ko du ma ko téye mbokk doon teewu saabal tomb net ñoo ngi leen di ci seen ànd ak saabal di jaajëfal Serigne Dame Diop saa Touba mu nekkoon ci xarale gi ci kàddu gi seen mbokku baarigéey la woon jërë def